wax ni c'est très important Sénégal loolu mënuñu ko xalaat mënuñu ko accepter di paasan di wax parfois il faut savoir dire un non catégorique même li ngay wax ni sax en affaire euh, mais lenn la ñu war a xam mënuñu def désintéressement intéressé parfois on a l'impression que ne il veut pas dire non comme li ñu wax ni non bu catégorique mais aussi possibilité boobu noonu muy def ci euh, xelu ñeneen ñi day ah. mel ne comme si que euh, dafay jox porte pour ñi nga xam ne actuellement ñu universel xamuñu ban yoon lañ mën a dem daf leen di jox tamit espoir. te loolu c'est en accord ak Pa Assane waaye. <laughs> ah sérieux mais <laughs> euh, yónni nañ américain yi ñu làmbaatu mu dëgër. waaw maa lañ ko njëkk laaj. bu mu dëgëree ñu yónni canadien yi. Canada dañuy làkk anglais. xëy na après nañ yónni naar yi ñu ñëw xool parce que man. naar yi moo mara de. Euh, euh, masiba masiba mbaaba kumba kay ñu ngi noonu naar moom xam naa ne duñ si dikk. si xam nga xam nga waxtaan bi sax mënoon nañ ko yemale ci lii. Mhm. <laughs> waaw li débat la partie actualité bi mënoon nañ ko ñareen ñaari point yi coronavirus à Thiès ñetti ñu ñu diagnostiqué ñu jóge Chine def nañ fa 14 jours gis nañ ne que amuñu benn jafe-jafe loolu benn point la mais mën nañ ko tëb jàll na coronavirus <laughs> dañ ko euh, dafa am ñetti commercant yu jógee Chine ñëw ca Thiès bi ñu wàccee Sénégal bi ñu leen euh, saytu dañoo euh, symptômes bi daal dafa leen xaw tiital mais dañu leen téye en quarantaine pendant quinze jours je crois à l'hôpital léegi nag ñu gis na ni amuñu dara hôpital Ahmadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès waaw docteur Malick Ndiaye médecin chef moo ñu ko xamal vraiment ci tënk rek donc alhamdulilah grawul Thiès Thiès da ngay def ni jàdd dugg foofu <laughs> mais beneen bi beneen bi as asma fi ma bëgg a wax Euh, beneen bi point d'actualité bi maître Oumar Youm la sur sur l'autoroute à péage. nee na nañu wàññi exactement euh, tarif bi tarif bi mu vraiment encouragé nañ ko dooleel mu ngi jéem a def face ak euh, waa kër euh, Gérard